may a un appel le 16 mars incha allah képp kuy patriote et patriote boo xam ni am nga sympathisant boo xam ni gëm ni président Ousmane Sonko mom la yakar, ñun ñëpp yaakaar la ñu am te yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu amnañu nañu Ousmane Sonko Mom, liñu bëgg ci Sénégal transformation économique sociale structurelle mon bëgg mom le 16 septembre Gour, Jigen, mag ndaw bu kenn tayal ñëpp dem tribunal. J'appelle tous les militants de PASTEF à partir du 14 de ñëpp que le président Ousmane Sonko ñu gungé ko yóbbu ko tribunal li ngeen di way gungé ko mu dem gungé ko mu ñibisi c'est ça qu'il faut faire ma am une pensée quand même à nos frères et sœurs yi nga xamni ñu ngi kaso Macky Sall tey leen illégalement parce que mom limu ragal la yaakaar ni moom la ñëpp ragal ñemewul kaso ñemewul alkaati tout le monde d'accord son histoire ba mu demee ci sëñ Baara Mbacke xale yi sax xam histoire bobu limu yaakar ni mom la ragal mom la yaakar ni ñun mom la ragal kon Macky Sall xamul histoire politique du Sénégal amna na ñoo xam duñu ay ragal té Pastef ragal nekku fi j'en profite Dramé mu makoy wax légui leur secrétaire général dañ ko dañ ko japp bu mu taxawé à la barre il a reconnu qu'il était parti accompagner son leader weddiwul à la barre dafa ni ce n'est pas un crime d'accompagner son leader. Nous, on doit prendre exemple sur lui, c'est le secrétaire général de Wakam. Nous sommes les leader parce que gannaaw yàlla ñun ñoo ko dénk sommes Nous, ne yow les nous donc dañ ko Nous sommes bu Nous nañu gis waxuñu sommes waxuñu nous sommes mais nak li xew Nous, sommes mi fan de kuñu dinañu fayu c'est-à-dire que loolu dafa war a leer nañ duñu nous saaga du ñu xeex mais kuñu ñu dinañu fayu ces histoires de nervis là dans chaque quartier que les jeunes s'organisent dans chaque commune nañu organiser dans le département on va s'organiser ces histoires de de de de de de de là si la police n'est pas capable de régler ça nous nous allons le régler Mme Abdul Aziz Sy Dabakh doon ne jamm mo gën lepp Abdul Abdul Aziz junior waxon nako fi Sénégal Il jëm buñ guerre civile dina fi am ñung koy wax à l'endroit de tous les Sénégalais à l'endroit de la communauté internationale il y a des risques de guerre civile dans ce pays parce que Macky Sall est en train d'armer des nervis pour qu'ils s'attaquent aux Sénégalais dañu organiser wu Nervis nervi bu fi jàpp bëccëku naré kàmm dinañ la taal ba nga tak jëppit loolu mom il faut que ça soit très clair wax len ko waxati ko ku dem ci plateau télé yi nako wax ku ñu fi xam nervi dinañ la taal nga tak jëpp parce que do dund sa ndey di dund sa baay di dund nga bëgg a rey ndeyu jàmbur doomu jàmbur yi jam lolou duñ ko nangu que les sénégalais prennent leur courage à deux mains l'islam moni nit bu la dóoree fayul nervi yi ñun ñooy régler problème nervi le Sénégal dafa tuuti nag te xamante nañu bu baax a baax a baax a baax ku ci am doomu nervi téye ko ku ci sa bàyyi nervi nek nervi ne ko bayil. parce que c'est ni c'est ni c'est ni c'est ni vie ñom seeni dundu yaay seeni dundu dom seeni dundu jabar yépp c'est en péril tant que nous nous serons en danger leurs familles seront en danger ce discours là c'est ce discours qu'il faut tenir on va faire face dara mënul fexe ba inshallah en 2024, ce sera exactement année pour année, le 25 février, Inch'Allah, président Ousmane Sonko. Nous sommes tous les Comme nous sommes tous les tribunal, nous sommes tous les palais. Inch'Allah, Merci beaucoup, l'honorable député Abbasfal. Merci beaucoup pour les rappels. Rappel, euh, suñu grand Abass Fall defal nañu ko mooy l'union des cœurs combat